yéen ñi ñëpp gis ngeen ko loolu li ma ci jublu rek mooy dama leen di wax ne yëkk yombut ba fii ñu toog di wax yëkk yombut nag yomb na waaye yëkk yombut de ay kañ mooy bu am boos bi ci kaw 1900 Alaaji Mansour gane àddina 1904 Alaaji Alaaji Abdou gane àddina 1900 1900 du 4 ans 1909 Alaaji Habib gane àddina ah mu yem fa kepp nag ñetti yëkk la ko joxoon am na ñetti nag ñetti ñetti doom yu góor tey bu ci nekk ku ci nekk yëkk nga ci diine l'islam bi ak ci tariqa tijaan bi ku ci ne yëkk nga ci kii ñuy waxtaanee buñ ci duggee di ngeen ko xam alaaji Mansour wax naa leen léegi ci début bi ma ne leen ñun ñu ngi nii di daw ndox mi wàcc te moom néeg ba mu amoon jak saw amul toiture te buy taw taw bi du ci wàcc naaj du ko naaj du ko tiim te mu ngi plein air xam nga loolu yombut plein air buy taw taw bi daf koy dévier buy naaj naaj bi du ci wàcc te ci néeg bi la dëkk juróom-ñaari at def na ko fa moom Alaaji Mansour yépp ñaari kurus yu junni lay yor bii ci loxo ndeyjoor bii ci loxo càmmoñ te bu ci ne li muy wax ci moromam bokkul ak moromam te benn du taxaw yépp ay dawandoo am na kilifa gu mag gu ko fa mas a fekk nuyoo di ko kale nag daf ko doon kale ne ko yow yaa ngi fii di lekk pom rek te kilifa la de alaaj Mansour ne ko sa tànku ndeyjoor bi bu mu fekk si bu càmmoñ bu ko fekkee rek ma nangu loo am ci yàlla yaa tal pom waaye Mansour talut pom kilifa gi ni rëtt taxaw pendant cinq minutes mu ne ko waa léegi mën ngaa yegg si te kilifa gu mag la bu ma la ko tuddaloon nga génn tànt bi léegi mu ne ko Mansour lu tax nga wax ma li ma la wax te may kaf rek mu ne ko yegg naa fi yàlla foo xam ne lu ma kafee muy dëgg moo tax kooku xëy na beneen yoon waaye tey rakkam alaaji Abdu moo moo moome alaaji Abib moo gën a doy ñépp ñëpp Cerno Yaxya li moom wax ci gémmiñam ne ñiy séddale trésor yàlla ñu tuddee leen mafatihul kunuz alaaji alaaji abib moo doon seen kilifa mafatihul kunuz yi Cerno Yaxya li moo ma ko wax ci gémmiñam mu ne ma ñiy séddale trésor yàlla ñu tuddee leen al mafatihul kunuz mu ne ma alaaji abib kaana minhum te moo doon seen kilifa te ñooñu ku am ci àddina ak laaxira ñoo la sédd ñoom la yàlla bàyyee trésor yi ñoo koy séddale malaaka amu ci yoon kenn amu ci yoon jamono bu ne juróom-ñaar la ñuy doon duñ ko manqué waaw kon alaaji abdul aziz juddu mille gane àddina 1904 ci tiwaawan alaaji Mansour mooy doomu Seydul Xaaji Malik bu góor bu njëkk a ganee àddina Tiwaawan ñi ci des ñépp ganee wuñu àddina Tiwaawan sëñ Babacar si ak alaaji eh, ak Sidi Ahmed si yépp ndar la ñu ganee àddina alaaji Mansour moo njëkk ganee àddina Tiwaawan ak alaaji ak alaaji ñoom ñoo ganee àddina Tiwaawan alaaji Abdul la gane àddina juddu rekk wéradi moom dafa judduwaale wilaaya moo tax mu wéradi moom dafa judduwaale wilaaya moo tax mu wéradi mosul wér ba nim dem bàmmeel loolu man xam naa ci dara danga ko daan fekk jak saw danga naan kii bu may joxe gannaaw ñu tàggee ko ndax xaal bi nga koy fekk da ngay dafa lay wóor ne kii wérul waaye wéradéem ngoogu yëpp ci la taxawalee lim taxawal li may wax nag moo ko nettali ci gémmiñam moom laa jabdu mu ne boobu dafa fekk mu wéradi mu ne Seydul Malik bindal ko benn téere téere dënn nee na te soxna Safiyatu moo ko moo ci sonaloon Alaaji Malik Seydi Haaji Malik ne ko ah suñu xiiboon bii de bu ma sañoon nga may ko lu mu takk kon kuy wax ne takk téere dafa xaraam xamoo lu xew Maodo la raw fuuf te bind téere jox doomam mu takk takk leen naan leen sangu leen ñi leen koy wax dañuy caaxaan rek ku ci feebar seeti hôpital bii dem hôpital bii ak naan saafara benn la rek boo gëmee yàlla piir kay buñ la hôpital ne la law wa shafi te muy dëgg yàllaay faj dogal ne yàllaay faj léegi nga dee yaa yëf yi caaxaan la rek tawakkaltu alallah tawakkaltu alallah waaye da dem faju ji li ko li eh, li ko li li ko li daa in yonent bi nee na feebar bu ne am na lu koy faj Seydul Xaaji Malik mu ngi ci Seydina Omar Seydina Omar moo njëkk a bind ay téere jox ay doomam ñu takk Seydina Ali ne ko danga nga a gis yonent bi def ko mu ne ko déedéet mu ne ko lu tax nga def ko mu ne ko xam ne war naa nekk mu ne ko foo ko teg mu ne ko ñun yonent bi daf ñu jàngal ay léemaay ñu mën ko mokkal ko te suñ njaboot gi mokkaluñ ko ma bindal leen ko ñu takk ko jeex na mu ne te njaboot gi war nañoo léemu te mënuñu ko mu ne ma bindal leen ko ñu takk ko Seydina Ali ne ko wax nga dëgg kuy weddi takk téere Seydina Omar a ko njëkk a def ci kaw suuf lu jiitu Seydina Omar sax amoon na buur buuru buuru Kisra bi bopp bi di metti Seydina Omar waa benn tey Seydina la moo bind la def ko ci këyit lem ko ne bu ngeen demee mu def ko ci mbaxanaam di ko sol buur bi saa yu solee mbaxana mi ak téere bi am jàmm su ko dindee bopp bi ne tey lay toj keroog bi nga xam ne niilu misra dexu misra bi pour mu dal at bu jot dañ daan jël jigéen jànq bu mosul sëy bi dàq ci dëkk bi solal ko solal ko comme kuy sëy waaw nañ waaw kañ waaw kañ solal ko comme kuy sëyi comme kuñ takk be muy sëyi solal ko ay gànjar defaral ko yépp préparer ko te xam nga fuñ ko yóbbu ci dex ga rek sóob ko ndax loolu la rabu dex gi laaj bi ko buuru misra waxee Seydina Omar ne ko suñ jànq ji léegi mu jeex te géej gi lañ koy jox rek at bu jot mu laaj ñu kenn ñu jox ko ko loolu mënul nekk Seydina Omar bind benn leetar bismillahi rahmaani rahim la ca def waaye boobaa bosam ba du sama bos de ne bu ngeen demee ngeen ne dex gi su fekkee ci ndigalal yàlla lay daw ku ñëw na lekk ku ñëw na bàyyi ñi muy lekk waaye su fekkee nag ci ndigalal boppam lay daw lu ñëw na lekk te ngeen sànni ko téere bi ñu ñëw ba ci bunt tefes gi ba ci tefes gi ne niilu misra Seydina Omar nee na su fekkee ci ndigalu yàlla ngay daw bu fi lekkati nit gannaaw tey su fekkee nag ci sa ndigalal bopp ngay daw ku la neex lekkal jël téere bi sànni keroog la géej gi géej a lekk nit ba fii ma toog di wax ak yow yow nga toog fii rek yara sa sikkim rek naa xaraam xaram xaraam li xaraam neexu la neexu la lijjanti li xaraam ak li dagan neexu la lijjanti ah waaw innahu wa innahu min suleymaana wa innahu bismillahi rahmaani allah taalu waatu ni muslimin loolu rek ay leetar ba di bu leen rëy rëylu ñëw leen fekk si ma tey ay jullit gannaaw bismillahi rahmaani rahim lam bëggoon yépp mu am ko ci basmala kon alaaji abdul aziz ne seydul xaaji malik bindal ko benn téere jox ko xam nga boobu ñaata at la am ñetti at jëm ñeenti at muy takk téere bi su ko takkee rek am jàmm mu ne ba bés benn doom nijaayam gane si ko ñëw gane si ci kër gi jóge jolof nee na ñëw di jàmbat feebar bu mel ni bosam mu summi téere ba may ko xam nga ki yàgg naa baax summi téere bi may ko ne ko yow maag yow bokk feebar kon jëlal mu ne soxna sa alaaji ab doy nettali de kenn nettaliwul ma moo ko nettali ma dégg mu ne soxna sa safiyatu toog ba jant bi so ba may waaj tëri mu xool sama baat gisul sama téere mu ne ma abdu ana si téere bi ma ne ko yaay maye naa ko mu ne ma kooko may mu ne ko sama doomu nijaay diw ndax maak moom ñoo niroo feebar te dama ko yërëm mu ne ko yow abdu yoroo di maye dal di jubali ci Seydil Hadj malik ne ko si waxal ci abdu mu ngi nii téere ba nga ko defaloon neena woo xaw ma doomu nijaayam ban moo feebar te ñoo bokk feebar mu may ko nee na dal ci koom mu ne Seydi Hadji Malick ne ko safiyatu defal ndànk abdu mii boo yeboo nga ba kook yàlla mi ko bind àjjana sax su ko amoon muy benn dana ko may te loola quatre la am boobu quatre ans déglu leen bu baax quatre ans la am boobu El Hadj Aziz nee na mujj gi bi mu mayee téere ba mu ne Seydul Hadji Malick woo El Hadj Thierno Saïdou Nourou kon yàgg na xaritoog El Hadj jox ko benn aaya ne ko saa yoo Abdou tawatee rek bindal la aaya bi ndax liy wéral Abdou ci sa loxo la nekk waaw bu keneen ñëw nag dégg nga yàq waxtaan bi. incha allah may naa ñi ci des ñëpp sama wàll wala li tafsir gay di wax ku sa yaram tàng ba nga am looy joxe rek jox ko ki nga dendal ci la tiyaaba bi di gën a bari ku sa yaram tàng rek ba nga am looy joxe maa ngi lay ñaan rek jox ko ki nga dendal te ne ko bu ko kenn yëg ñépp a soxla fii koo fi jox rek mu sant yàlla ki gën a oomal sax boo ko joxee mu sant yàlla xam nga lu tax ña ca gannaawoo ma tax waaye yii day yàq day yàq lu bari su ko defee Alaaji Abdou Aziz nee na Cerno Saydu Nuuru saa yu ko feebar bi daaneele rek Cerno Alaaji Cerno Saydu Nuuru mooy bind aaya bi jox ko su ko naanee rek giif ba jëmmi jamono mu ne ba bés nag Alaaji Cerno Saydu Nuuru tukki feebar bi daaneel ko duma tudd turi góor ga nag xam naa turam waaye am na njaboot mu ne genn góor ñëw ci Seydul Xaaji Malick ne ko la ko Cerno Seydu Nuuru daan bindal xam naa ko mën naa ko ko bindal mu ne alaaji Seydu Xaaji Malick ne ko déet la koy wéral nekkul ci sa loxo ci loxo Seydu la nekk moom moo tax alaaji Abdu daan wax ne docteur du wéral yàllaay wéral waaye yal na yàlla bind ci loxo loxol docteur yi wér ba ñu laal mu wér yal na ko yàlla def loolu boobu mu ngi am quatre ans Alaaji Abdu na bi muy am juróom-ñaari at la jógee Tiwaawoon sopp bu mu soppoon magam Alaaji euh, Sidi Ahmed si bu Seydu ma Maalik boobu mu ngi Cees Sidi Ahmed nekkoon na Cees nee na muy bési àjjuma nee na ma namm ko rek ne fokk ma tey gis ma si tey moom ma gis Sidi Ahmed nee bi ma duggee saxaar ñëw ba ci gaaru cees mu ne fa laa fekk Alaaji Mansour di ma xaar ala astaghfirullah Sidi Ahmed di ma xaar te kenn waxu ko ne maa ngi ñëw xanaa yàlla moo ko ko xamal mu ne te tànki neen la def mag ñi mbokkaloon xadaratul juma wax nañ ne ci diggi xadara ku ko ci roy nag dem safara du cër Mansour Guèye ñii laa wax dañuy dégg ma wax dara rek ñu bëgg ko essayer billaay ku ko ci am na yoo xam ne ku ko essayé yaag yàlla ñu ne plein xadaratul juma ci la Sidi Ahmed dagg xadaraam jóg rek jubali gaar ba def tànki neen dox bi mboññi ko mag ñi laaj ko mu ne laa doon gàttandu ji ndax bi muy xa bi ñuy xadara la ma yonent bi wax ne abdoo ngi ñëw demal nga gàttandu ji ko te boobu sept ans la am na ñu ne neuf ans nag pour bu ngeen déggee beneen wax waaye man la borom nettali mu gën a wér loolu laay jël nee boobu ci juróom-ñaari at la toll moom si ñab nee boobu mokkalagul alxuraan Alaaji Abdu mu ngi mokkal alxuraan à l'âge de huit ans bi ma amee juróom-ñetti at la mokkal baqara bennaasi nee na xadara juma boobu xaw naa yàqu keroog ndax Sidi Ahmed wax yam fa wax ci moom nettaliwul nag wax wax yu kowe la wax ci moom si ñabdu nee na bi mokkalee alquran ci la ko Seydul Xaaji Malik jël jox ko sëñ Haadi Ture sëñ jàngalu ko alquran daf ko toppaatal jàngalu ko alxuraan de daf ko toppaatal bi mu demee ci moom toppaat nag ba mokkal ba wér la ko sëñ Hadi indiwaat nag ci Seydi Hadji Malick pour mu tari dégg ngeen wax bi bu baax kay bi mu taree it ba noppi dinaa ñëw ci tari bi ci la ko Seydul Hadji Malick yebalaat tëngéej ci alaaji mbay baasin pour mu déglu ko <laughs> yëf yi yombul de alaaji Abdu nee na keroog bi mu ma yebalee ci alaaji mbay baasin tëngéej nee na ma ñëw di tari mu ne ma bismillah commencé tàmbalil nee na ma tàmbalee baqaral di wàcc di wàcc di wàcc di bay ba ci euh, Bachir dimbale ma fu fu fu fu fu wi tudd suratu shuara waaw kañ nee na bi ma yegsee ba Shuara xam nga ne sori na bon nee na ma ne euh, naka laati yatba'uhumul ghaawuun wa shu'araa'u yatba'uhumul ghaawuuna alam tara annahum alaaji ne dama juum ne alam tara innahum mu ne rek alaaji Mbay jaayu ci sama lex yi kër nee na ma xamatuma fu ma nekk nee na ma mu ne abdu nga ne ma ne ko alam tara annahum mu ne nee na baat boobu laa mos a juum ci alquran seetal loolu xoolul ne kii doomu alaaji malik la de biñ ko laajee mu ne bu ma ko deful nii sama nejaay alaaji malik nu ko raw la may def ndax confiance ak kóolute moo tax mu yebal ko ci man pour ma sot pour ma déglu ko alaaj Abdu ne baat boobu laa mos a juum ci alxuraan alam tara annahum ma ne innahum ci la delluwaat nag ci loxol sëñ Haadi pour wan la ne jàng du caaxaan li muy nekk nekk doomu alaaji Maalik doomu Safiyatu Ñaŋ ñuy ñu tedd ñu baax cerewul sëñ haadi mosu ko xoolee bëtu kii doomu alaaji Malick la nee na sëñ haadi xaw na ma rey ci daara ji mu ne ba na ñoo xam ne dañ ñëw ci Seydi Hadj Malick ne ko ah Malick mu ne ah mu ne ko haadi ma leen nga bàyyee ab jàngalu ko de da koy rey de na le mu koy def kenn du ko def nit nee na Seydi malik Malick fenetal xam nga nit ñi boo leen toppee it sa njaboot du baax mu ne Seydi Hadji fenetal mel ni ku déggul wax ci mu ne ba keroog nag bi ma sëñ Hadi di indi may tari nee naa laaj Seydi Hadji Malick ne ko Abdou baal ma ma laaj la ne ko loolu mu ne ko nit ñi dañ wax ne sëñ Hadi jàngalu la daf lay xaw a yóbbu laaxira ndax ñoom lay métitale mu ne ko papa nit ñi dañ bari solo rek sëñ Hadi bëggut lu ma baax seetal xam nga kii du xale buy nettali mu ne ko papa nit ñi dañoo bari dañoo bari solo rek waaye sëñ aadi defuma dara bëggul lu dul ma baax rek mu ne ko ah si loolu de laa bëggoon a dégg ci yow te xamoon naa ni loolu laay dégg ci yow mu ne ñu fanaan ba bër set mu ne ci panaan moomu nag may romb mu ne foogoon naa ne sax Maodo gisuma mu ne waaye dégg naa ko nag mu ne ma mu ne Maodo yëngal bopp bi ni ci balaa diine ji ak tarixa bi di am lu ko neex sama xiiboon bii moo fi toog seetal la yàgg na boobu sëñ Abdou ngi am juróom at jëm juróom-ñeenti at 9 ans 10 ans la sëñ Abdou am mu ne Seydi Hadji Malick yëngal bopp bi ne ah diine ji ak tarixa bi balaa am lu ko neex sama xiiboon bii moo fi toog fii ma toog sama xiibon bi bu fi toogee diine ji dina am lu ko neex tarixa bi dina am lu ko neex yaakaar naa loolu ñépp teg nañ ci seen bët wala déet kay nee na bi ma amee juróom-ñetti at nag jëm juróom-ñeenti at sëñ Hadi indi ma may tari alquran pour Malick baayam alaaji Malick dégg ko baqara benaasi mu ne dañ ko organiser nag mu ne sëñ Hadi ak Seydi Aj Malik ñoo nekk ci biir néeg bi Maodo ubbi palanteer bi may jaabante ci diggante fenêtre bi ak koñi néeg bi pour péex mi mën koo upp moom sëñ Abdou alaaji Malik ak sëñ alaaj sëñ nekk ci biir di ko déglu nee na may baagante sama baat ca kaw nee baqaram di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc mu ne ma bi ma yegg see ne taaha mu ne ma dégg Seydi Hadji yuuxu mu ne sëñ Haadi génn ne ma Abdou doy mu ne fala tari mi yam keroog mu ne ba ma nee laa dégg Seydul Hadji Malick yuuxu mu ne sëñ Haadi génn ne ma Abdou doy na mu ne biñ bi ma coogee ba ci ëllëg sa mu ne ma dégg sëñ Hadi ak Seydi Hadji Malick di waxtaan mu ne Seydi Hadji Malick ne ko Abdou di ku yéeme la mu ne ko ma ne ko si lu xew mu ne sëñ Hadi ne ko si lu xew mu ne ko ab Abdou daal ku yéeme la moom daal xam naa ne digganteem ak sallallahu alayhi wa sallam kenn xaju ci mu ne ndax bi mu ne taaha rek ak bi yonent bi di yegsi ci néeg bi benn la xam nga taaha mooy yonent bi beneen ci luxa pa mooy tegal sa tànk ta mooy tegal ha sa ndëggu paa saar wu doy waar la pa mooy tegal mooy wada tegal ha sa ndëggu muy paaha di turu yónnant bi boole ci xam nga lu ko indi yàlla ñaar la boole foofu dafa wax ak yónnant bi sallallahu la wa sallam ba pare fajaale aajoom ndax yonent bi boobu dafay naafi la xiif bi mu yégee ne dafa xiif ndax toog na ay fan lekkut mu ut ay xeer xeer yu xaw a dëgër teg ko ci biir bi jël kaala takk ci continuer ta continuer naafi la bi muy naafile naafile ba mu yàgg mu yëg ne coono dugg na ko mu jël tànku ndeyjooram bi kol-kolal ko ci bu càmmoñ bi pour noppal yàlla ne ko pa mooy tegal ha sa tànk bëgguma tànk booy kolkolal yow sallallahu alayhi wa sallam bi tegaat tànkam reprendre at julli te booba naafila la muy taaha kon nga yëg ne si ñabdu bi muy am juróom-ñetti at fekk waaye ñu dellu tuuti ginnaaw lan moo indi turu Abdul Aziz Dabakh te Seydou Hadji Malick ñépp miin ne njobootam yépp yonant bi la leen tuddee walla njobootu yonant bi taawam soxna Faati si kum ko tuddee Fatimatu bintu Rasul Sidi Ahmed moo ca topp mu tuddee ko Sidi Ahmed si mooy Ahmed yonant bi sëñ Babacar si topp ci Seydi Aboubacar njobootu yonant bi na alaaj Abdu topp ci alaaj Mansour topp ci alaaj Mansour ñëpp xam nañ ne Mansour turu yonent bi la ci turu Mouhamadul Mansour alaaj Abdu juddu mu tuddee ko Abdul Aziz Dabakh bi it alaaj Abdu laa dégg mu nettalil boppam mu ne moom bi muy gane àddina dafa fekk Seydil Hadji Malick mu ngi ci pantre bi def téere yi dafa daan am ay diir yoo xam ne day dugg ci pantre boobu di wàccee téere yi di yër mu ne keroog nag ñu ngi ko fekk muy yër téere bu ñuy wax ibris ibris ku ñuy wax Abdul Aziz Dabbaax moo ko taalif dëkkoon maghrib doon nitu yàlla bu mag sa bisma rabbika laala la njàngam yemoon yàlla ubbi ko mujj na maghrib yépp kuy ut xam-xam ci moom ngay ñëw Seydi El Hadji Malick nag di liir téere boobu mooy di yër téere boobu Ibriz ñu fëgg pantere bi mu ne bismillah ñu ne ko dañ lay yëgal ne soxna si de mucc na soxna Safiyatu am na doom bu góor mu ne ah rus naa nag di yër téereb jàmbur bañ yëgal ma nuwel bu neexee nii ma di ko tuddee keneen bàyyi borom téere bi kon sa maytuhu Abdul Aziz Dabakh lii moo indi turam moom turam turi kóllëre la kon kon xam nga ni sëñ Abdou ku mën a dox kóllëreem gi cosaan la Abdoul Aziz boobu nag dañuy taxaw tuuti ci moom li tax ñu tuddee ko baax mas naa dégg ku ñeme yàlla ku nekk ci benn télévision ma wax tur bi léegi mu ngi ci télévision bi saa yu ma ko xoolee rek ci loolu la sama xel di dem xam nga moo tax wax wax bu garaaw baaxul mooy bi sëñ Abdou génnee àddina 97 muy def émission ci sëñ Abdou boo ko maîtriser wul bàyyil mu ne Alaaji Abdou Aziz Dabaax diwoo ko tuddee baax ndax daa baax mu ne kii xamul sax xew xamul sax lu xew Alaaji Abdou Aziz Dabaax turandoom moo tudd Abdul Aziz baax ak baax mooy kuy wulli bu dee dar yi naar yi di wulli ci baaj bi faat ndey faatu jond ba la xam na leen wulli yooyu ñuy wulli dara ak dabaax yi lañ tudd neb neb bañ cey def ba der bi nooy ñu wulli ko ba jaay ko ñu mën cee defal ay yére wulli boobu ñuy wulli der boo demee ca Saalum ñoom nag lañuy wulli xam naa papa xamul loolu ñoo seexu ñoom dee nañ fii bu yàgg nag dañ koy wulli pour mën ko liggéeyloo nawet boo ko deful doo ko wulli fas dañ koy wulli pour man ko liggéeyloo nawet ndax boo ko indee takk ko sut xam ngeen sut mooy yooyu ñuy takk ci seen bopp yi def ci machine bi soo ko ko miinalut soo ko ko defalee xëy mu yàq sa taraase donc ko ciy entraîné ba miin ko léegi sax léegi sax ñoom am na stratégie bu bees mooy dañ ko koy takkal rek bàyyi ko noonu muy wër ak moom bu njëkk nag ñun man jaar naa ci ca Medina Baye Mass da nga ko koy takkal noor cooroon ngay dugg ci àll bi di daw ak moom ba mu tàmm ko nag dañ koy wulli fas dañ koy wulli der dañ koy wulli Abdou Aziz Dabaax boobu nag di turandoom moom nit roox la daan wulli yóbbu ci yàlla nu roox mën a mel bu toogee yow cinq minutes defar la nga dem ci yàlla turandoom Abdou Aziz Dabaax noo mën a mel ci yàlla loo taq taq taq boo toogee moom cinq minutes mu wulli la defar la ci yàlla nga dem bañ tuddee ko Abdul Aziz Dabbaax kiy wulli roox yi di leen yóbbu ci yàlla wax naa ko bés nag xam naa danañ foog ne wax bu garaaw la déedéet ma ne leen kooka lu mu am ci yàlla alaaji Abdul Aziz a ko raw xam nga lu tax kële duwuloon tiijaan te alaaji Abdu tiijaan jeex na foofu rek laa foofu laa ko teg kële duwuloon Tidiane te El Hadj Aziz Tidiane la di xalifa Cheikh Seyd Ahmad Tidiane di xalifa rasulullahi di xalifatullahi fil ardi yépp mu incarné ko wax naa ko keroog ci xadara bi foofu laay tëjee wax ba foofu laa koy tëjee ji ma ne leen El Hadj Aziz lim yenu woon moom kenn ko yenu woon tey ñaata nit a ko séddoo keroog ñaata laa waxoon jeex na tey téeméeri nit ak fukki nit ak benn ñoo ko séddoo te kenn ku ne la nga yenu yaa ngay bëgg a dee te ci jamonoom moom kenn moo incarné yépp yenu ko te kenn déggul tey téeméer ak fukk ak benn ko séddoo te ku ne la nga yenu yaa ngay onk ba yaakaar ne suba ngay dee xam ne yàlla li muy maye du fi jóg waaye incarnation yi moo dul de moo dul benn kon alaaji Abdul Aziz nee na sëñ Haadi mu ne am na bés ñu seet si Seydi Hadji Malick ñii jàng nañ déglu xam-xam yombul bëgg a jàng bëgg a noos ngeen baal du dem yéen ñépp laay wax nag jigéen ak góor bëgg a jàng bëgg a noos du dem ngir yàlla kuy jàng yoral comportement kuy jàngi waaye bëgg a jàngi boo demee maître ba lay jàngal sax ñee la du la jàngal non non booy jàngi dangay am comportement kuy jàngi nga modestie soo amee yére yu cher sax nga sol ya gën a yemba mbay walla waaye dem taxaw ci sa kanami professeur mu comptabiliser li nga sol yow mën na ko fay moom du sawar ci jàngal la kuy jàngi da ngay da ngay da ngay modeste sol yére yu yem Alaaji Abdul Aziz loolu dinaa ci ñëw parce que vraiment xam-xam du caaxaan képp koo xam ne yaa ngi jàng na def itte ci jàng billaahi jamono bii ñu toll ku def lu dul jàng te toll ci jàng di ko rëccu xam-xam moo konte suñ la tegalee alal teg la tegal la bay rek tegal la lu mën a doon jëlal xam-xam te bàyyi yi ci des soo amee xam-xam yépp wuy si la malheureusement nag léegi fonkatu ñu xam-xam parce que niñ ko banaliser moo tax nit ñi alal lañ bëgg te gis nañ ne am na yuy tuuti yoo xam ne mooy gaaw a joxe alal mais loolu jaru ko nañ jàng ñu xool alaaj Abdu ci njàngam ni mu ci sonni nee na bi alxuraanam mokke nag mu ne Seydi Hadji Malick woo Sëñ Haadi ne ko Abdu mii daal li ma soxla ci moom ci yàlla ak ci xam-xam yépp a ngi ci sa loxo mu ne Sëñ Haadi ne ko insha allahu doo ci am lu la métti gis nga bu leen woy lii Sëñ Haadi taalif ci moom ku mel nii nga mel xam nga xasida bu gudd la xam nga bi ko sëñ di taalif ci Alaaji Abdu ñaata at la am fukki at ak benn sëñ ku ñàkk ki la ku ñàkk ki la sëñ bi muy taalif loolu ci Alaaji fukki at ak benn la Alaaji am te xoolal wuy wi ni mu rëy yëkkati ci tuuti rek masaa Absolutely.

Yeah. Ablaye na nga def Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye na nga def Mbaye kon la

ngi jégalu bu baax. waaw. ñun de ma yaakaar ne dañ laa déggee la maam Ousmane ak ci yoon bi nga ne wayal ñu doxoon tuuti rek dugg si lala doon doon fa dana la waaw du dara boo soppee nit ay mbiram yàlla la koy wax connexion ngay am rek. amiin yaa rabbi wallaay si dama waxtaan bi tey ñoom ñoo tànn ne nañ wax tànn ci Mawlaay Cheikh El Hadj Abdoul Aziz boobu léegi ci lañ nekk boobu ba léegi ci lañ nekk may wax nag digganteem bi mokkalee alquran fa laa toll ba tari ci kanamu Seydil Hadji Malick ak xaal ba ca Maodo amoon ba muy delluwaat moom mii moo ma may mu ngi koy fàttaliku moom mii moo ma mayoon téere bi moom mii moo ma ko mayoon dañ yàgg de lu tey moom mii moom ba léegi maa ngi ko gàdde la ma xat ku bëgg a xam lu bari ci Sëñ Abdu nag boo ko yëree di ko gis ci lañ toll ba may wax xasiida bii Sëñ Haadi taalif ci Mawlaay Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ma ne leen sëñ Hadi ku ñàkk ki ñaan la ndax booba sëñ du ndaw la toll ci fukki at yu teg mu taalif ko ne pat ah ak bayit bii waaw kon maa ngi nii maa la gëm maa la gëm ñaari yoon kon it maa la gëm maa la gëm maa gëm su fekkoon sëriñ su fekkee ab taalibe day gëm sëriñ benn yoon su fekkoon ne taalibi dafay gëm sëriñam benn yoon kon it maa ngi nii maa la gëm maa la gëm xanaa ñaari yoon dolli na ñaari yoon kon it maa ngi nii maa gëm maa la gëm taalibi ba dolliwaat su dollee ngëmam ngëm moom taalibi bi ba muy ñaari yoon suñu xaat ko kon it maa la gëm maa la gëm maa la gëm sëriñ Abdou suñu xaat ne ko nu may def su dollee ma dolli mu delloo ci dolli ma dolli ko ba dolli ko lu raw am xelam ah li ma doon wax léegi ñëwul loo loo xam ci bàyyi jàmbur kañ bay wax bàyyi jàmm borom dooma la ko gën a xam <laughs> léegi laa lay jëw te yegg see ko waaw laa si Malick ma di leen wax ne li mu am ci xam-xam daf ko ñàkk daf ko ñàkku kaññe ko moom si ñàbb ci laa toll woon ma ne jeunesse bi nañu jàng parce que li mu am ci sëñ Hadi gis nga léegi Ablaye Mbaye nga koy wax yaa ma may montar montar booba du jaaxaan ca jamono booba beneen ba la ko indi sëñ Haadi dafa am dëkk bu mu doon dem ba tisbaar jot mu toog di jàpp fa mu doon jàppee mu fàtte fa montar ba wéy ñu dox ba tàkkusaan di waaj a jot xam nga loolu kon ndox ba sori na mu bëgg muy xool waxtu pour julli gisut montar bi mu ne du laggal fa ma doon jàppee la montar ba nekk de laggal dem seetali ma ko sëñ du fitti xam nga luy fitti ak tànku neen taxawul bi mu ñëwee ba tiim montar bi la daanoo xam ñu ne tëpp tëpp ba mu ximmale ko ndeke dafa fekk rasulullahi taxaw di garder montar bi montar ba du caaxa xaw yow da signal di montar yéem na ko benn mu naan yaa ma may montar. moom mi defar ay montar. moom mi defar ay montar yi boppam. heure Fass Touré ak moom heure boppam la am. dafa la daan wax waxtu te du xool montar. ñun demoon nañu ba mën ko duñu daan natt waxtu bi. da nga daan natt sa taxawaay. natt ko ñaata la toll ci ay dëgg. boo ko nattee ba pare nga ñëw waxtu waxtu bi toll na ci ñaari waxtu ak nangam. am na yow mu ñu naan wax yow mooy bis bi nga xamante nii guddi gi ak bëccëg gi ci la yemoo képp benn du ci rew sa morom seconde ci la bi daan réglé ay montaram ay montaram <laughs> ngone mën cee xam benn église lay am moo koy tabax benn cercle lay doon mu samp ak weñ ci digg bi dañ koy natt yëpp ba mu yem su jant bi dee dox weñ ngi di dox jant bi day topp weñ ngi day topp jant bi rek fu mu toll xam na ko waaw guddi moom ku jàngul astrologie loo ci mën a xam heure ñun xale yi waaye bëccëg ñun tam ñu ko jàngaloon ba ñuy ñëw rek wax waaw kooku sëriñ Aliou Touré loolu gën a tuuti ci ay mbiram. kon kon kooku xam nga ne montar mu ko montar ba mbir la alaaj Tijaan Ñang moo ma jàngal luy montar ca Ndar alaaj Tijaan Ñang bii ngay gis maa ngi mbind mi xattu yaddam mu ne ma Chérif kaay ñu waxtaan ñëw mu ne ma xam nga luy secret montar ma ne ko déedéet mu ne mooy xakim mu ne ma moo moo tax yàlla ne wa man yuutil xikmata faqad uutiya xayran kathiran wallaahi sëñ Alaaji Tijaan ñang ca Ndar moo ma ko jàngal mu ne ma indil kayit ba léegi kayit gi maa ngi ko denc xattu yaddam mu ne ma indil ma kayit ma indi kayit waaw mu schéma bi mu wan ma ko ba noppi def douze ci kaw def six ci suuf def 1 2 3 4 5 xam nga bind na 6 def 7 8 9 10 onze bindoon na 12 dal na ma shérif jëlal 12 bi teg ko nii ma jël 12 bi teg nii mu ne ma 11 plus un onze bii ngay jël plus kook 1 bale égal 12 10 plus 2 égal 12 9 plus euh, 3 égale 12 plus 5 égale 12 6 bi nga indi ko ci suuf boo jamoo yëpp boo plissé yëpp moo lay jox 78 di xakim huit plus quatre égale douze nga indi six bi teg cinq plus 7 égale 12 nga indi 6 bi nga indi 6 bi nag teg boo boo additionné yépp moo lay jox 78 mooy xakim mu ne montre ci xikma lay dox wax ma ci doy waar keroog la may wax ba di ma wax wali yu xadir ni muy doxee ci biir montre la ci jan ñan ku doy waar la woon daqaatu qalbil mari daqaatu qalbil innal innal xayaata daqaa'iqun wa sawaani dégg nga daqaatu qalbil mari ni say xol bi naan tic tac soo ko nattee daf lay tegtal ni dund gi ay heure la ak i minute ay minute la ak ay seconde daqaatu qalbil mari qaa'ilatun lahu innal xayaata daqaa'iqun wa sawaani wallaay mu ne waxkat bu ma a ko wax ci jeexal pour jox ko nga gis sëñ Haadi mu ne sëñ Abdou nee na bi ma yegsee ba bëgg ko wax li ma gis bi may jël montre bi mu ne ma Abdou bul wax li nga gis gis naa ko moo taxoon ma yónni la sëñ Haadi it kenn du moom dafa préparé sëñ mu ne ko Abdou noppil li nga gis gis naa ko moo taxoon ma yónni la montre bi tey jii koo fi yónni woon fi ak Pikine rek mu ne la jox ma paas fii fii ñu toog ak pikin gii rek koo fi yónni woon mu ne boo ko juree sax mu ne la paa jox ma paas quoi te lële doxu ñeenti waxtu la sëñ Abdou euh, boo demee ci la ma xat nee na am na bés dañ seet si Seydil Hadj Malick bay ñibbi mu ne mu guddi ñu dem ba ci yoon mu ne sëñ Hadi astronomie daf ko xamoon mooy xam mu biddiw mu xool xool gisul biddiw bu leen mën a gindi pour ñu dem Fass Touré mu ne ko Abdou dafa mel ni dañu xal di fanaan de mu ne ko fàkkal fu ñu mën a lal sëñ Abdou ne ci guddi gi may fàkk ma lu ñax mi di dagg di teg te xamul lu ne ci ñax mi ne la bañ am fu yaatu mu ne te boobu kat li ñuy dox yëpp maa yenu gaal gi man Abdou gaal gi def tiir yi di taru al di tari alxuraan sama jukki di tari topp ci moom téye genn fas wi sëñ di war tey doomu Seydi Hadj Malick yow ngay jàngee fii ci lycée bii di laaj mburoog café ah dem université naan yàpp wi dafa forox waaye nañ seetaat yëf yi kii doomu Seydul Hadj Malick la te tey bokk na ci ñi defar Sénégal te xoolal lii mu daj. boobu Seydul Hadj ñëw na te jamono bi El Hadj Abdou nekk xale Seydul Hadj Malick digg bi ci digg wilaaya su doon barke tey dañ naan boobu barke bi bari na sa doom boobu sa doom yi nga gën a bëggal sa bopp préféré mm-hmm. <laughs> nga eh, ba jox ko koo xamante ni mi ngi koy tàggat di ko waaye su doon tey dafa moo gënoon métti armée sax Alaaji Abdu mu daj ci tarbiyaam ci nit mën mburu ko daj ci taal waaw dafa daan taal fii sébb taal ci côté bi muy tàkk mu ne ko toogal ci digg bi tere ak Quran Alaaji Abdu daf ñu ko daan woon mbaggam ñi dafa lakk ba ñun ko yooyu yëpp ay façon boo ko jox te si maa ngi ko boo moom daal mu ngi noonu sëñ Abdou ayatun min ayatillahi waxuma la sax wilaaya gi waaye nangu gi nangu gi nangu gi rek moo njëkk a yéeme ah. moo tax mu am lu kenn amul nee na bi ma fàkkee ba noppi lal der bi teg gaal gi mu ne ma du seetal foo dott fas yi dott xam ngeen dott gone yi yëpp xamuñu ko dott mooy da ngay seet foo yeew fas wi dott nag doo ko yeew da ngay jël ñax walla bant gas as pax dugal ci ñax mi wala bant bi suul ko rokkas ko pour pour bu mu mën a dem si ñab du ma ne ma seet bant bu ma ko dottee awma ko ma seet ñax gu ma ko dottee aw ma ko ma yeew buum bi ci sama loxo jël sama loxo dugal ci pax mi suul di jàng sama jukki boole ci man du ma fen doomam a ngi nii toog dëgg la loolu góor gi nettali nañu ko ci làmmiñu boppam ñu boppam nettali na ma ko ci ñu boppam nettali nañu ko ñu dégg ko mu te lu wér xaqiiqatan moo doot dott fas wi ba fajar jot ñu soog a mu bale wax mu defaraat place ba lem lem sa yaada yi ñu la lool rancé lis yére yi sottilaat sañu addi turist satala yi mu jàpp mu du duyaat satala yi ba mu fees mu daal di ko ñu commencé waat dox jëm face turist nee ñu nga jaar yi tekkees jaar ñaaxeen jaar cilmaxam jaarul mar naan lii tey jaar dëkk bu ñu naan kër dem ba Biraag yi jaar te tund xewar ga soo ko dugg faas man miy dem gàmmu ay numaan jaxate rek damay daw ba fàtte ne ci Sénégal laa nekk man maay def gàmmu ko maag sëñ Abdou Aziz Al Amin ñoo ko njëkk def gàmmu ay numaan jaxate ay numaan jaxate maa fa njëkk a lal malaanum wasifa man mii di wax ak yéen man mii di wax ak yéen maa fa njëkk a lal malaanum wasifa billaahi wal te dañ doon ku ko fa lal doo da ngay faat amul yoon boobu biñ gàmmoo ba fajar si sëñ Abdou dem ñibbi ma ne sëñ Ousmane nañ wasifa paa yi di xoolante comme ne nañ ko fa wasifa de parce que man boobu jàng naa li tax xaadi bu fi kenn wasifa tubaab bee tere woon wasifa Maodo rek a amoon autorisation wasifa ci kaw jamono boobu Maodo dong nga amoon autorisation wasifa ci kaw xaadi ne kon ku wasifa ku ku julli suba ñibbil sa kër nga wasifaa sa néeg ndax bëgg jàmm ñoom ñu def ko farata ma ne leen kon de bu ma deewee fii bu ma kenn yóbbu yóbbuwaat Ndakaaru bu leen ma yóbbu Tiwaawan Tiwaawan suul leen ma fii ci dëkk bi sama càngaay pare na mu ngi ci oto bi waaye daa ñu wasifal tey ku ñeme toogal ci jàkka ji ñu wasifal ku ragal demal ñibbi ñu sëlmal julli ma lal malaan bi ñu wasifa ma ñaan bàyyi fa malaan bi ne leen nii la ba léegi ñu ngi wasifa fajar suba ngoon wallaahi la loo xamante ni ñoom sëñ wallaay. Mhm. wallaay. wallaay Mbaye. wallaay Mbaye. dëgg la lii leen ko ngeen di ay nu man jaxate te xaadi ma jaxate ka la ponkal la. fi mu jaar Seydul Xaaju Malik rek kenn mënu la ko Maodo dul kenn ku nit mën a attan <laughs> waaye Maodo ku ko attanoon xaadi ma jaxate ka la kenn mënu ko séen fenn. waaye Maodo la nit xamul doomu aadama la wala lan la الجمال شيخ تقي لا لا يذل بهبة على التقامة بالإله المعاني تمام عن الشريعة والحق خرج النوم موضوع يهدي المريد لخالص الأديان سيد الحاج مالي سامي مقامي وعمدة العلماء القائل العراق وقمقل الخبراني سمام سما الشيخ عجب السماري انا سممت الحاج مالك يا سيدي خالي وشيخي ووالدي مرازي وحسني مرشدي ووسيلتي الى الملك المعبود جل جلاله واختل نوحا الى خير امتي خليفه ابي العباس وال ستره جزاء الله الارض خير جزاء مولا بقصب سيد الحاج مالك سيدنا عثمان سلام كذا عنا جلاه خير جزاء قصب سيد الحاج مالك يحيي جكا كذا عنا إله العبد غير يدا ما دام راحل لقيصر لبقوم مجبر زمن سيد الحاج مالك ياتنا جنينا رما جديد وكن دفت شرعا وعقلا ورمايا كن تسر مولدك النداعي كل النبي كل مراد إن كنت تعلم شيئا خير ذاك وذاك وسنة المقاومة والمذوق فيه من دون شك ولا تعدي يا رجب الطريق وصل على ربك قدر في كل خطر ne ami sàll sàll sàll nit ñi gisee sàll déedéet yow du ma ne tukk laay شرعا وعرضا وما يعلم Alaaji Maalik comme sëñ bi ñëw na rek dañ koy jox kàddu gi lu wax ñu doyloo ko bu noppee ñaanal ñu yàlla ba déwén ñu yeggali ko ndax sëñ Abdou kenn mënu ko jeexal ci ay waxtu kenn mënu ko jeexal ci zaman bu ne sax waaye ñu wax ca lañ tolloon ak la nga xam ne mën nañ koo jiriñoo dama bëgg rek ñu bañ di def wax wax wax wax ndax yéemu nañuy jéem li ñuy wax ci moom ñu di ko jëriñoo léegi wax naa ko ci takk gi ma demoon ma ne leen su ma doon wax luy jëm ci rey nit sax na ngeen xam ne def naa ko ba noppi man ruus naa di wax nit lu ma dul def billaahi lazi laa ilaha illa huwa alxayul qayyum lu ma digle rek maa ca jiitu rus naa di wax nit lu ma dul def jomb naa ko moom laa wax léegi fi ma jógee ma ne leen bu dul dara dama ne maa bëgg sëñ lu di ko roy nit nag boo koy roy da ngay seet lam daan wax nga di ko wax lam daan def nga di ko def moo tax léegi rek fi ma jóge te boobu xaw ma woon ne sëriñ bi daañu gisi ajaa mbayang wadd ca tëngéej moo ma bàyyile woon doomam ma doon ko maye fa tabaarakallaahu fa laa ñëw fii mooy présidente fédération sëriñ Maodo si bu tëngéej moo woon doomam ma doon ko maye loola fa laa ko doon waxe mm-hmm. kon si kaddu gaangoog sa kaddu la bi may tàmbali laa leen ne dama ko ko téye ndali oustaz a ngi nii Abdoul Aziz di ma digg ba ma waxee dama ne ko ah sëñ Ousmane fu mu ñëwee fa laa koy yemale de ndax nit boo ne wuy juróom mooy sama kilifa moom sa kilifa la tey jii ni Thierno Bachirou Mountaga Daha nekkee sama kilifa noonu la nekkee sama kilifa kon fa tabaarakallaahu si Malick lii yow lañ ko doon téyal ndey ami sàll jërëjëf li yow lañ ko doon téyal di la wax ne sa daayira ngoog waaye yaa ma boole woon ak ñoom rek mu yàgg lool lool lool waaw bañ ma ne kilifa lañ bëgg boobu docteur Amadou sàll moo nekk ci bopp bi ma ànd ak ñoom dem ba ci yow boole la ak ñoom ca pom ba fa tabaarakallaahu ah boobaak léegi nag mu ngi rafet rek ma di la ko seedeloo kon nag ñun ñépp ñu maase déglu sëriñ bi lum ñu dënk ñu jéem caa jaar jëriñoo ko ba ñu mottali li ci des waaye daal fi ma yem nañ ko bàyyi xel ndax jamono école buy waaj ubbi lañu toll mm-hmm. ngir yàlla Sénégal nañu faratal njàng Sëñ Abdou de xam ngeen ne jàng na ba ba ba rey boppam seetal li Sëñ Ousmane wax léegi te moo nettali na ko ñépp dégg mu ne sëñ Haadi bu ko daan tariloo day taal ñaari sibb bii ci ndeyjoor bi ci càmmoñ mu toog ci digg bi xam nga lum ci jublu woon sëñ Haadi pour sëñ Abdu bu jaayee xool rek daanu ci benn mooy du nelaw xoolul ne Seydi Hadj Malick moo ko ko jox yow ngay yow ngay jógee géejawaay gi di jàngee ci pikin bi di laaj paas pikin gii di laaj paas lakkal sa ndey witt ak sa baay jox ma paas bu ma jàngee ji te njëriñ leen la yaa koy jëriñoo amaat na balaa sa ndey di màgg walla sa baay balaa ngaa màgg ba di leen jëriñ fekk soxlaatuñ dara ci àddina bi xam nga meer mbubb mii tey lu ko doomam mën a teralee lu dul yaay am junni bi mu jënd ci guro di kolkolal lu ko safati ci àddina moom mi tànk yi neexatul bët yi neexatu yaram yi neexatul waaye cokor cokor yal na yàgg rek bëñ yi boo xoolee yu bari dem na waaw jeex na kon nag waaw li ma ci jublu rek ba joxe ci exemple mooy kii tey lu koy lu ko doomam mën a teralee lu ko saf lu dul mu yëg ko wolof nee na li béy dundee ba sax sikkim mën na caa wéy ba ba muy dee nañ bàyyi sama yaay man la yaakaar sama bàyyi man la yaakaar waxoo dëgg yaay eh, dana toog ba léegi di la yaakaar yow amagoo dara sa yaay di la yaakaar kon deena di ñàkk na fay di yow amagoo yoragoo naan sama yaay léeg-léeg xale bu ñëw ci man naan ñaanal ma ma dem bitim réew ndax may sama yaakaaru yaay ak sama yaakaar bu pap bàyyi ma ne ko tukk yaa ñeme yàlla yow sa ndey jur la ba nga nii amagoo dara nekk yaakaaram neel ñaanal ma ma am teranga ju ma leen teralee rek waaye sa ndey yaakaarul la sa baay yaakaarul la waxoo dëgg nañ modifier waat langage yi nañ amaat yar amaat teggin sëñ Abdu lii beneen yoon danañ ci dugg yar ak teggin moo ko ëppale woon ñëpp billaahi wal kitaab bi bu la mosaan nuyu rek nga rus ni mu lay nuyoo xam nga ñu bari dañ daan wax sëñ Abdu loxo yi dafa nooy kam wettin dëgg la de waaye billaahi façon bi mu la daan nuyoo yow boo demee da ngay jàngiwaat nuyoo ba yow mal doo ko mën mm. façon orma bi mu koy defee mel ni kuy nuyu malaaka dangay ngay sentir ne kii dafa ma yëg ba mu jeex takk ay yow booy nuyu nit ñi sax di cox seeni baaraam ak ak ak di puus seeni loxo alors père foofu laay jeexale jox sëriñ bi wax naa leen ko fii dafa am benn booy bu nekkoon fii géejewaay léegi takk na jabar du ma tudd turam bi am na doom taalibe maam borom Touba fekk may waxtaan ci langage te gis nga murit yi ngeen may ma rek ñoo gën a yaru ci kaw suuf seen langage benn la benn la ak saa jërëjëf jëwrin waaw wàcc na liggéey sëñ bi daay noppalu ñun nag la sëñ Abdou Amine doon wax rek mu ne ma Chérif ñépp nag doomu nar a ci gën a tëxat mu ne day ñëw ba ci yow tàpp la marabu kama fa ci xam nga ne marabu du sa morom <laughs> ndeysaan bés la ma koy mu ne ma doomu ndara gën a dëxat ci yàlla bi mu ne day ñëw ba tàppale marabu comment vas-tu ça va bien mel ni marabu moromam la ñun xamuñu sax lu ñu war xamuñu sax lu ñu war suñ diggante ak suñuy kilifa xamuñu ko boo ko xamul nag doo jëriñu mën nga dem ba dee doo jëriñu ci sëriñ bi fokk nga am orma ci sëriñ bi jox ko cëram ba mat sëkk mooy tax a yegg ci yàlla soo ko deful doo dem bouger mètre joxal sëriñ bi un million par jour te joxoo ko orma doo dem fen ñàkk koo jox dërëm te jox ko orma yaay kiy dem nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel bu baax sëriñ bi mënoo ko jox lu ko jommal jamais maa ngi koy wax barki démb ma ne leen da yaakaar ne El Hadj Abdoul Aziz kantoom si laa ci doon waxtaanal téléphone bu sëriñ Mbaye Mansour xalifa bi ñuy waxtaan lu yàgg ma moom ma ne ko maa ngi koy wax benn mbooloo ma ne leen dañ yaakaar ni alaaji Abdul Aziz dina baxa doomu jàmbur yi rombal ay doomam xam ngeen li rombal mooy li tafsir gay di wax rek sol mbubb mu weex ba mu xal nga dem cuub ko cuub ko cuuba cuuba cuub sol ko ba jaadootul nga palmaan ko ba jaadootul nga tentiir ko ba jaadootul na nga rombal ko ne ko am yàlla jox la danga ca amatul pexe couleur yëpp a jeex ah couleur yaa jeex amatoo couleur moo tax nga ne ko am yàlla jox la waaye yéene woo ko sax ngeen yaa ma ne ko dañ yaakaar ni nit ñi dañ yaakaar ni Alaaji Abdou Aziz dana cuub doomu jàmbur yi di palmaan leen ba pare di rombal ay doomam loolu du ko def xam nga ne Alaaji Abdou kum defar ci kaw ay suuf ci suuf ay doomam a ci jiitu ndax responsabilité bi njëkk ci kaw suuf mooy ay njabootam la ko yàlla di njëkk laaj doonte ñëpp njabootam la waaye njabootu deretam la ko njëkk yàlla di njëkk laaj te loolu xam na ko kon nag lam cey def du ko def ci keneen waaw ah, ma ne leen bi ci topp mooy dangeen koy xool ci Seydul Hadji Malick ndax njabootam des nañ ginnaaw jeex na ci Alaaji Malick mooy Alaaji Abdu wax dégg ngeen li ma fi ma jaar léegi digganteem ak Alaaji Abdul Aziz moom Seydul Hadji Malick jur doom ba noppi wax ci moom li nga wax ci moom loolu du tagg ko du yëkkati ko waaye da nga kon nag ne ñu nañu góorgóorluwaat ci suñu diggante ak suñuy kilifa yi ndey ak baay nangu ki lay jàngalit nga omatu topp ci kawam doonte professeur la français ngay jàng booy jàngi amal comportement kuy jàng solal lu simple boo demee nuyu ko nuyu ba gën a jekk toogal déglu ko lu mu la wax mu am barke waaye boo ñëwee monsieur mel ni sa moroom la je ne te crois parce que c'est pas ça du dem du dem ki lay jàngal fokk nga am ci moom orma soo ko deful sax day téye xam-xamam gis nga mën na jàngal dix élèves waaye ku mu nga xam doo xam jàngalekat yi dañu am seen méthode de ku ci yaruwul billahi dañ leen la alphabétiser waaye doo xam boo amee yar am teggin nag alphabétisation ak éducation c'est pas la même chose danañ la alphabétiser nag waaye doo xam mooy tax nga gis ku taxaw université di làkk tubaab mel ni kuy lekk gerte caaf doo xam sax lu muy wax da ngay ruus naan maa ngi faculté lettre deuxième année billaay tubaab wala jub sax mënoo ko la xam nga kooku dañ ko alphabétiser waaye jàngut loolu nag li koy def mooy nekk ci classe respecté woo ki lay jàngal nit ku lay jàngal da koy respecté jox ko orma booy dem école nga sol yu correct lu baax bu dee jigéen nga suturaal sa bopp lillaay wa rasuli door a dem jàngi sama soxna sële yal na ko yàlla yërëm faama wadd professeur français la woon nee na ma prof français prof yu góor yee ko ko daan wax mu ne xale yi jigéen yi da ngay gis ñu sol yoo xam ne seen ween yi daanaka ci biti la ñuy nekk ñëw nag di riisu prof bi naan ko monsieur mat bi lan la wax pour attirer professeur bi waaw li sii jinge di wax mu ne bi mu ne sikket sikket tëwut mu ne tënga wodduwul sii si jinge moo koy wax nee na sikket tëwul tëng moo wodduwul sikket sikket mooy béy wu góor wu mag tëwul nee na tëng moo wodduwut xaw ma dégg ngeen wax bi walla déet ah tëng mooy jànqub béy xam nga jànqub béy day soq fu ne lay curpi jëm ba ko ba ko ba ko sikket naan cëfit nag du ko yëg si sa jinki bi toogoon fii fekkee ngeen ko moo koy wax moo ne tëng moo ne mu ne sikket tëwul tëng woddu wut professeur yi ñuy tuumaal nuñ mën a mel xale yu jigéen yi la am na noo xam ne boo ko defoon dem jàngi professeur bi du la ne sa bët bi suuf a ngi ci ngeen baal man am naa ko ñëw ci man ne ma sama prof bi laa nopp ñaanal ma ci mu takk ma billaahi wallaahi tallaahi ma ne ko ndax prof bi dafa yëg ne nopp nga ko mu ne ma déedéet lu ne nag def naa ko sol naa mini dem lu ne def naa ko waaye moom xoolu ma sax ma ne ko mu ngay xool ku la fawqa ma ne ko moom it am na am na am na fulla di day xool ku la jéggi yow ma ne ko yemal ci jàng yemal ci kuddu ñu roof la ci gayet yàlla bu mu la takk fi dunyee wal axirati billaahi wal kitaabi loolu laa ko ci tegal ma ne ko yàlla bu mu la yàlla bu la takk yàlla na nga tarasu ba yowmal xiyam te yaakaar naa du ko takk nag ndax fan yële laaj naa ko mu ne ma gisatuma ko sax ma ne ko yàlla na ngeen dajee yowmal xiyam parce que am na loo xam ne tamit doxul ngeen baal ma sëñ Ousmane billaahi man dama yërëm jeunesse bi jàng moo yore réew football yorut réew làmb yorut réew match de football du avancé loo benn réew bu doon avancé loo réew Brésil mooy gën a avancé ci àddina ñoo gën a tardé tey réew yi gën a tardé Brésil ci la bokk réew yi ëpp violence Brésil ci la bokk réew yi gën a pauvre Brésil Brésil ci la bokk pauvreté bi nekk Brésil newul Sénégal xamule te ñoo ëpp lu ñu jël coupe du monde kon lan la coupe du football di jëriñ dama leen di laaj lan la football di jëriñ France a ngi nii du moo gàññi coupe du monde dafa raw Amérique Amérique mosu ñu jël coupe du monde te ñoo raw ci àddina bi wala déet Amérique sax xamuñ football faf ñoom est-ce que xam nañ càmmoñ lañ koy dóoree bal wala ndeyjoor ñoom seen yoon newul ci football ñoom xam-xam lañ toppatoo ñun nag fii xale bu ci nekk père ñaanal ma ko ah ma dem am club yàlla boo am club non ngeen baal ma rek ma jox sëriñ bi goo xale boobu nag mu ngi fii amoo carte sëriñ mu ne ma chérif xam nga man langage yooyu kañ laa ko bàyyi ma ne ko déedéet mu ne ma dama dem màggalug Tuubaa boobu ay nu rahmati melut nii xam nga léegi dañ ko defar waaye boobu da ngay rang ay barigo la woon dañuy tànq di la sottil nee na ma ranga ranga rang ba yegg si ci góor gi tànq di sotti ne ko père defal ma fii mu ne góor gi teg lam doon kii rek duuteem ne ma di ma wax loo yabee loo ma yabee ba fekk euh, bàyyi père ca ndakaaru ca làbbe ca eglise ba ñëw ci dëkku sëñ Touba bi naan ma père di nga wax luñ ma bindee ci sama jëbi père ba ma naan peer nee na duute ma ma topp biir nit ñi di def zigzag mu naan jàppal leen ko jàpp ma xam ne buñ ma jàppee rek nee na may zigzag ba génn mu ne ci laa xam ne yara de ko baaxul père mooy lan doone papa wala bàyyi moo gën a yomb nga naan père luy père wala góor gi langage yooyu nañ ko bàyyi te yaraat suñu bopp gis nga Sénégal bu ñu amoon un million de dollars par jour wala un milliard de dollars par jour te billaahi jikko yi soppeeku duñ avancer duñ dem mètre nit nag xam-xam a ko mën a soppi waaye leneen mënu ko soppi xam-xam rek xam-xam du caaxaan Maulana Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz liñ ko gën a nawee xam-xam ba ca la bokk yar ba ca la bokk teggin nga ca la bokk waaye dal ga ca la bokk. nit dafay am yar am teggin dal te jàng sëñ kër Si daan na wax ni lu dul mu ne jàng yàggut ñàkk a jàng yàgg jàng yàggut ñàkk jàng moo yàgg te billaahi ku ci jàngul di nga ko rëccu jeunesse bi jàng leen te bàyyi po mi jàng leen te bàyyi po rawatina xale yu jigéen ñi talabul ilm faridatun ala kulli muslimatin waaye wa wa muslima yonent bi nee na sàkku xam-xam farata la ci jullit bu góor waaye na bu jigéen ba surtout génération bi ñu toll billaay ku ci yorul dara tey jigéen balaa ngaa am jëkkër danañ la tufli ba nga tooy te du tax nga am sëriñ boo xam di nga ko jonkoon mu tufli la ba nga tooy xepp te doo am léegi man ñi may utloo jëkkër jabar yépp xam nga lu may wax utal ma ko am dara billaahi wal kitaab bi ba tey moo ci mujj démb rek am na ku ma maye koo xam ne eng mu nga nekk Amérique maa ngi ko maye ci ci sama saal mosuma gis mos na sëy ba tas nag pour mu bañ charia ma Omar mii xam na li may wax mosuma gis mu paas ma yaayam ne ma dëppi depuis 2012 ba tey maa ngi lay topp ci net bi doy nga ma kilifa seetal ku la neex nga may ma démb laa ko maye. Ah, waaye sëriñ beneen <laughs> démb laa ko maye yàlla sedd na ko te ñi lay wutloo yëpp dañ la naan seetal ma ku mën dara am xadijatu waaye léeg-léeg ku may ko ci wax dama naan la ndax yaay Muhammad <laughs> ah, am xadijatu kat am Muhammad baax na ci moom kon nag bu jamono yeggee foofu ci ci doy waar yéen jigéen ñi buggoon ñi jàngee benn jàng leen ñaar buñ jàngee ñaar jàng leen ñett buñ jàngee juróom jàng leen fukk ndax bu dul dara ku leen joxul ngeen jox seen bopp depanse bu matul nga montalil sa bopp te ne pat te bàyyeek yàlla yàlla fay la salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñun ñépp nag nañu maase ànd ak yar ak teggin déglu sëriñ bi lu mu ñu baaxe ñu yóbbu bu paree ñaanal ñu yàlla ba déwén nag jàmm te bu dewee déwénee nag ñu fexe génnee ko nawet bi te yàlla ñu suturaal la taw bi mu fi taw ah, yaakaar naa ne bu tutoon sutura yàlla ñun ñii moom kenn waxatuñu kon nag ok ku yàlla di suturaal nag da ngay suturaal sa bopp comme yàlla suturaal nañu ba taw bi arrêté na bu dewee déwénee nag génnee leen ko nawet bi wolof nee na baadoolo ci bunti këram lay taw waaw loolu nag bu mu ñu dal déwén mukk nañ ko génnee nawet bi te xam ne nawet bi nawetu yàlla la ñuy it alalu yàlla lañ kon nag sëriñ bi kàddu gaagoo nga baal ñu nag ci yëkkati kàddu bi ci sawet ñu ngi ciy jéggalu bu baax si Malick si dem bun na si Demba Xoreja waaw kii représentant maire bi ba kii représentant maire bi dafa doon dem ma ne ko may ma rek Serigne Ousmane bu ñëwee gannaaw yaa fi toogal maire tàggoo na bay dem mu ne ma waaye yeewi ma rek ma ne ko bismillah kon mën naa laa yeewi fi ma ko koy waxee ne ñii yëkkati leen rek ma seen Serigne Ousmane di gaare ma ne ko ah Serigne Ousmane ñëw na mu ne ma kon bàyyil ma toog ma boobu nag mu ko jox ngeen may ma rek mu sànni ci ay kàddu ñu jox sëñ Ousmane ngeen ubbil sëñ Ousmane jox ko bismillah mu sànni kàddu ah. moo ko yabal mu ñëw fii pour fa ñu lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax sant nañ la bu baax a baax moom Ousmane Sy Malick ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax nuyu nañ mbooloom yëpp jéggalu itam ci kàddu yi suñu sañoon duñ ci yegg waaye ndigal la mënuñoo wàcc soxna Aminata Kanté dafa dem Touba tey. jaale ji xalifa bi soxnaam mu ànd ak président Alaaji Malick Gakou mu woo ma ci ngoon mu ne am na carte bu nekk sama oto terminus 24 fa la waxtaan bi amee te shérif moo koy def fexeel ba shérif bu mu la fa jiitu ci la daw yegg si alhamdulilah ba mu ñëwee shérif fi la ma fekk ba mu ñëw itam suba ba léegi maa ngi ci yitte yi ma ñaanoon ndigal shérif pour yeewee ko far juste ma séen la nga yegg si ma ne itam du teggin di doy ni lu jóge ci maam Abdou ñu waxtaane fii ak li ñu wax yëpp ci maam Abdou mën a damay dem génn baas bi yàlla xam na ne am na yeneen programme yam waaye damay fas yéene toog ba kere ngay ñaan yi ñu soog a dem defe naa ne ci gàttal shérif li ci des mën nañ ko teg ne ñu delloo kilifa gi kàddu gi mu waxtaan ak mbooloo mi ndax moom la ñoon xaar guddi na condition climatique yi xaw na doy waar mm-hmm. vraiment ñu jébbalaat ko kàddu gi ñu ñaan mbooloo ñëpp ñu bokk déglu te wax amin jërëjëf def ko rawat yi loo daan def mu jig la damay wax toujours ne moom fu ñu tasee santuma ko waaye maa ko war lul sama bopp ne fu ma taseeg moom lu xat-xat-xat dinaa ne kenn ku nekk ci mbooloo mi fu waay toog loo am du sarax ndax moom du lekk sarax ci sëtu yonent bi lañ bokk wax naa leen ko ba tàyyi Seydul Xaaji Malik dafa nëbb sharafu tiinam feeñal sharafu diinam waaye ci Fatimatu Zahra ba ci Seydina Xasan Samsu diin fa la Maodo jaaree shérif xaqan la ma dégg Cheikhul Xaaji Abdul Aziz wax ko lim ko ba ci yonent bi kon nag ñu jox ko haddiyam rawati nag wuy juróom lañ doon waxtaane kon nag kuy wax ci bàyyi jàmbur ba doom ja toog bu dee dëgg la li ngay wax ci yow teralal doom ja ku bëgg ci cere jobot ne doom ja yaa nguu du noonu kon nag acca bismillah ñëw leen sëriñ bi mën a wax waaw allah allah allah waa bokk yi sëriñ maam Ousmane nee na dafa guddi moo tax nee na waykat ku ko tere way gaañ nga ko waaye ngeen baal ko rek guddee gi moo tax léegi ta léeg-léeg waxtaan nga déglu ci loo xam ni ne bu ca dara tegoo mën naa tax nga fàtte lu baax la ne lii nu dégg mu génn ci dënnu sëriñ jaar ci làmmiñam wu barkeel wi ba baar jaar ci suñuy nopp dugg ci suñuy ruux ne dafa bëgg ñu jariñoo ko nee moo tax wax ji dootul bari waaye nee mënula la ñàkk ñu nuyu bokk yi leen nee fedd ka waat wóllëre ak ñoom ak cofeel nee bokk yi lim leen di wax saa su ne nee sama digganteeg yéen du sëriñ ak taalibe su demee ba mënta ñàkk ma nekk taalibe ngeen nekk ay sëriñ ne baayam maam Cheikh Al Hadj Abdou Aziz moo ko daan wax daan ko dénk saa su ne xaw ma ñaan de waaye yéen ñi ngeen xam ni man Abdou Aziz Sy maa leen jur yéen du ngeen ay sëriñ yéen ay taalibe ngeen ni ma ana nga maam Ousmane ma ne maa ngi nii papa dégg nga li ma waxam mu ni dégg naa ko. mu ni dama ni yéen du ngeen ay taalibe yéen ay jaam ngeen ndax maam Cheikh man Cheikh Alhaaji Abdul Aziz ñaanoon naa yàlla mu def ma jaam ba soob na yàlla yàlla nangu na jaam ga te sama deret ji ci la ma leen yàlla saraxe te doomi jaam jaam rekk lay mën a nekk na ngeen woyof na ngeen ñeme xiif na ngeen ñeme ñàkk na ngeen ñëwee wéetaay na ngeen ñëwee jàng na ngeen disponible na ngeen accessible na ngeen serviable na ngeen na ngeen ne loolu daf ko daan def lu bari ne bokk yi kon nee mi ngi jël bu buumu njaam yeewu ko ci baatam teg ko ci seen loxo fépp fu ngeen ko xëpp xëcc jëme fu ngor nangu fu diine nangu fu mbaax nangu incha allah dinaa ci ànd ak yéen jaam nag waru ñëw ci biiri sangam waaye jaam bu am sang yu baax mel ni Chérif Ibrahima Aïdara Atijani mel ni mbokk yi yiw yi toog ne ñu indi jaam bu ndaw ba maam Ousmane ci seen biir yamu ca ñu may ko muy nee bu mu tee nag mu xam boppam te xam ni jaam rekk la ne jaam nag bu xamee boppam la ko war mooy seet lépp luy bégal ay sangam mu def ci la mu mën nee xamul nan lay def ba ngeen bég waaye daana gis seen soppe bu baax ba seen maam ja di maam Cheikh Alhaaji Abdoul moom moomu nga xam ni moo ñu jur ci njaam gi waxtu wu ma saana toll ci situation yu mel nii ba bëgg bégal ay sangam daana yëkkati kàddoom kàddu leeram ya kàddoom yu yiw ya kàddu yu bari njariñ ya boole ca baat bu neex ba tagg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa def ko muy ndokkeel def ko muy participation bégale ko ay soppeem jaamoo ko ay sangam nee la mu mënoon nag xam na ni moom mënu ko waaye nee na dina jéem doonte benn bayit la walla ñaar mu def ko muy participation mais ma bégale ko sang yi jaamoo ko sang yi bégalee ko soppe yi yàlla na yàlla nangu ayna almisku min nafaxaatiha mal misku illa jibatun bi dimaa dëkk di nu jàngal waxoon ñu ni laa darara wala diraara bu leen roru waaye bu leen lore ne joppul am na ay mbokk yu bëgg a yegg ba seen kër am na ay bokkit yu bëgg a nelaw am na ay bokkit yu amee aajo yoo xamante ni si xam na ni jataay bi mënatuñ ko waaye kersa dina leen jàpp ba du nu mën a jóg ne ñooñu ne boo guddalee di leen lor te lore baaxul lore lore it baaxul loru it baaxul ne kon nag yaram bi dafa xaw a diis waa te itam fa tabaarakallaahu ne bokk yi mi ngi sàkku ñaan waaye ne mi ngi gërëm mi ngi sant ne Chérif Ibrahima Aïdara Atijani mi ngi koy sant di ko gërëm ne jërëjëfati Chérif ne yow Chérif nee na yow léppam nga ne billaahi wallaahi tallaahi ne maa ngi koy giñ ci màggu yàlla ne ba may tànn Chérif kenn sa sexalu ko suukar ne moo ko xool ba mu doy ko ma tànn ko ne mooy sama shérif man ne loolu yàlla ko dogal ne shérif yi tina am na yoo xam ne ay dereti rasulullahi lañu waaye shérif yi jikko am na de am na ñoo xam ni dereti rasul lañ waaye am na ñu jikko nag yu baax waaye am na ñoo xam ni wóor na leen ni ñoom ay deretu sayyiduna Muhammad lu leen ko xamal seeni jikko moo la koy xamal ndax seen jëf yëpp jëfi sayyiduna Muhammad la seen wax yëpp waxi rasulullahi la seen comportement yu sayyiduna Muhammad la ne man nag dinaa naw nit waaye duma naw ñépp nag waaye ku dëggu dinaa la naw ne te ku dëggu la ne wallahi maa koy seedeel yàlla loolu billaahi wallahi ne lu ma wóor la man doonte shérif moo ma gën a xam boppam waaye loolu man xam naa ko ci moom te duma ko kafaara mukk kon yal na yàlla yokk yal na yàlla yokk ne nit la mu baax le lépp soo ko waxee ci benn tànt soo fa kastaloo ne ñu ne ah maam a ko catu waaye nag làmmiñam du nekk ci cat ci moom mukk ne yow ñaan gu nangu lay nekk ci yow Chérif incha allah ne Chérif mii ku sopp maam Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz la waaye yéen ñëpp na ngeen xam ni Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz ku ko sopp la ah kay wax lépp baaxul ne Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz moo ko jur mooy waay juram dolli ci nag sëriñ maam Ousmane mii mooy caatam kon su ma la waxee ni la sopp na diw am na lu cay dëkk léppay dëgg ne soppe nag moo gën a foor njaboot sopp yàlla jurul yonti yàlla muhammad bokkul ak moom ndey bokkul ak moom baay bokkuñu sax ay maam waaye sopp na ko def ko muy gën gi mindeef lu ci waay man dara ne sopp rek mooy affaire bi ne yàlla nañu yàlla dimbali ci sopp bu dëggu bu dëggu bu dëggu lool Chérif Bachir maa ngi naan Bachir Chérif Bachir sax ngir kontaan waa sëriñ bi nee na ñu ñaan ne mi ngi bëgg a yëg benn xaal na ñëpp wax amiin wax leen amiin أنت رجاؤنا وثقتنا فاجعل حسن ظننا فيك تيسير أمورنا وقضاء حوائجنا وشفاء أمراضنا وغفران ذنوبنا ومحو زلاتنا وفتح أبواب الأرزاق لنا بمحض الفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم أنت قلت وقولك الحق ud'uuni astajib lakum wa qulta ya rabbi wa qawluka alxaq wa ida salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daan man yujibu almutarra ida daahu wa yaksibu suu daawnaaka bi xaqi alqur'ani wa bi xaqi salaati alfatixi wa bi xaqi alhaylalati wa bi xaqi eh, istigfaari alkabir wa bi xaqi haylalati masaai aljumaati wa bi xaqi jawharati alkamal an taqdiya xawaaijana wa xawaaija man asnadu xawaaijahum ilayna li mashaariqi lardi wa magharibiha salaatan tabtaxu lana biha abwaab al arzaq wal taysir wal najaax wal falaaxi wal salaami wal amaani wal qabuuli wal ridaa salaatan takun lana biha waliyan wa nasira yow yàlla anta waliyuna mawlana yasir lana kulla amrin yow yàlla yaay karamin yaa xam na ngay def sa jaam ey waay yàlla yaa xam na ngay def sa jaam de yaa jàppandal jafe ya yaa jàppandal jafe ya yaa waasi al juudi yaa baax yaa bëri yërmande xam nga li ñu bëgg te di ko wut yow yàlla jox ñoom yow dañoo li ñu jox sax koo toll yaa ngi bëgg alhamdulilah li rabbil alamin bañ dina dugg kamabraat wasaban wi lam sidaaxatuhu amin waat laqat aluban min rifqatin la mënu wax leen amin wa man yaxtasim bika yaa xayral wara sharafa wallahu xaadiluhu min kulli muntaqimin wa man takun bi rasulillahi nusratuhu wax leen amiin ay waay wa man takun bi rasulillahi nusratuhu wax leen amiin wa man takun bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajimi sallallahu alayka ya muhammad sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu ala xayri bariyati bi hurmati allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad النبي الأمي العربي الهاشمي الأفتحي القرشي المكي المدني الفاتح الخاتم الناصر الهادي عين الرحمة عين الحق طلعة الحق كنز العظم وعلى آله صلاة تعرفنا بها صلاة توصلنا بها صلاة ترحمنا بها صلاة تبلغنا بها صلاة تقضي بها حوائجنا الدنيوية واغلنا آمين والأخروية وحوائج من أسند حوائج من صلاة تفتح لنا بها أبواب الأرزاق والتيسير والنجاح والفلاح والسلام آمين والأمان آمين والقبول آمين والرضا آمين صلاة تغلق عنا بها أبواب المطربة والخسارة والهلاك والهم والضيق والندامة صلاة يوم الله ايوه ايوه امين بها وليا ونصيرا انت ولينا ومولانا امين وصل صلاه تبلغ حق قدره صلى الله عليه وسلم ومقداره العظيم سبحان ربك رب شريف تجر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاه الفاتح yàlla bu mu nekk suñu mujj daje yàlla nañ ko teewee ay at yu bari la ko def ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf